yéene liggéeyal sëriñ tuuba ko xam yàlla xam yonen liggéeyal sëriñ tuuba yéen murid yi leen màggal gi laa leen di xibaar ñaar fukki fan ñett ci aw kori bis ba bis ba yéeme leen màggal gi leen di xibaar sëtam ba woona leen turam wa moo di seexul xadiim yéen murid yi Sénégal déglu leen màggal gi leen di xibaar sëtam ba woona leen woona leen turam wa moo di seexul xadiim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen déggee sëriñ Saaliw Nger ak jàmbaari sëñ Bamba jëm doon mbak ndigal bàyyi ko na fa mu doon jógee ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te jaar ci rakkam ju baax ji sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke borom daaray Kamin wàcc si ci doomam ju tedd ju baax ji nu jàkkaar lool muy sëriñ Seexul Xadim Mbacke moom sëriñ Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bale su lu mu woote bisum maamam bi. bis bu tedd bi nga xam ne si ni bu wootee rek bisub Cheikh Abdou Lahad Mbacké lay woote ñu ni la sept juillet lay doon tombeek ñaar fukki fan ak ñett ci weeri kor yi waaye nag sëriñ bi mi ngi bàyyiloo xel mbokki taalibe yi siyaare bi nga xam ne si ni bu màggal gi desee ñaari fan la cinq bi alxames moom la ñuy siyaare nag trois heures na fekk ñëpp ñëw fii ci kër sëñ bi ñu àndandoog sëñ bi àndandoog mbooleem fédération xidmatul xadim fu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew mi danañ ñëw ànd ak Serigne Seexul Xadim dem ba ca way juróom bu tedd we nga xam ne mooy Serigne Sidi Mbacke siyaare ko at bu jot ñu di ko def yàlla nañ ko yàgg a def. ñu ngi nuyu mboolem waa xidmatul xadim yëpp di leen soññ seen sama tur di leen soññ si xam ne mooy tur Seex Xadim Mbacke mi nga xam ni moom moo waral màggal gi ñuy woote ci mbiru organisation bi ñu leen di soññ ñoom ñëpp buñ nee ginnaaw suba màggal gi ñu génn ñoom ñëpp ginnaaw tàkkusaan jëli bagage yi indi ko fii ci kër sëñ bi te buñ ñëwee ñu ànd ko dal ànd ko yar buñ demee ba nga xam ne ñooy jëm si wàllu siyaare ba kenn ku ne xam ne kuy siyaare sa kilifa kat dañ ci ànd ak dal ànd ceeg yar kon ñu ngi ciy woo ñëpp mboolem xidma yëpp bàyyiwuñ kenn xidma yi nga xam ñoo nekk ci Touba yëpp ñu ngi leen ciy woo ñu góorgóorlu ci organisation bi gën koo def nam rafete naam ndaaw rafetoon na waaye ñu gën koo def nam selle woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñ kenn ñu ngi di woo ñëpp ci turu Seexu Xadim Mbàkke nga xamni tay buñ né ñent fa na dess ci magal gi la jël li nga xamni moy mooy jumtukaay moy matériel yi indi ko fi ci kër sëñ bi ñu ci woo mbolam daayira xidmatu khadim yépp yi nga xamni ño nekk ci gox bi ñu ñëw and ak dal and ak tay and ak yar bu boba nak buñ démé bay dem si siara bi and ak organisation nak kenn ku ne ya mëna organiser bop kuy dem séti kilifa kat da ngay and ak dal and ak yar bu ko dé bo démé la nga fay sak nga mën ko jëli kon ñu ngi wo ñëpp mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci barab bu tedd bi ñu leen baxoon nuyoo ngir wote bis bu mag bu tedd di wotel jëm ju sel di serigne Abdoul Ahad bis bobu nak mi ngi am ñaar fukki fan ak ñatt ci wéru kor yi fi ci kër serigne cheikhul khadim mom serigne Sidim serigne Abdoul Ahad lañ koy wote di ci wo mbollem daaira khidmatul khadim yi nga xamne ne aju ci kër serigne bi te nek ci bir Touba ak yi nga xamne ño nek ci région yi ak yi nek bitim réew bàyyiwuñu ben daaira ñi ngi ci ciy soññ taxaway ba nga xamne ne lañ dan am ci bis bi nañ ko am na nga xamne ne lañ ko dan amé ba laq ci serigne bi bis bi nak dafa wo melo wo xamne dafa mengo ak borom bis bi ginaaw bañu wote wootee alquran mi amna doxalin yu fi doxal yo xamne moy yi nga xamne moy netali ay jaar-jaaram ak leeral ko nit ñi bañ mëna a xeeñtu ci lim daan dox ba man ko caa roy moy exposition bu am solo bi nga xamne daan nañ ko fi def buñ ne ginaaw suba la magal gi dinañ ko fi def ci doxalin wi nga xamne mom lañ ko amé moy la vie de et l'œuvre de Serigne Abdoul Ahad Mbacké dimension spirituelle loolu nag dina fi am ci fànn yoo xam ne ay xerañte dana ca dana ca feeñ ñi ngi sàkku ci mbokk yi taxawaay ba nga xam ne moom lañ ko daan taxawee danañ ko ko taxawee ku fi ñëw mu nemmeeku ko dinañ jaar-jaar yi Serigne Touba yi nga xam ne doon na ko jaar ci dëkk yi ci biir réew mi ak bitim réew tey nag Mbàkke Bari la ñu tànn ngir leeral la nga xam ne moo fa doon xew dana am foofu ci biir exposition ba nañ fa rendre hommage Serigne basirou Mbacké ndax jenn doomi Serigne Touba ju ne ci Serigne Modou Moustapha lañ ko tambalé won tay nak mu tombé ak Serigne basirou Mbacké mom lañ mom lañ fay rendre hommage ñi ngi leen koy ñi ngi leen ci soñ bu baax baax di fatali it siyaar bu am solo bi nga xamne serigne bi dina ko def di and ak talibé yi ak soppé yi dëkkandoo yi ak xarit yi ak fu mbokk mëna né dem siar ji way juram serigne Sidi mi nga xamne moko moo ko digaloon gi té mo am ci taxaway bu kawe bi nga xamne ñun ñi and ak mom xam nañ taxaway bi mu ci am di leen ci woo yéen ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn am na it kuréel bu am solo boo xam ne moom la ñuy wax Croix-Rouge dañ fiy ñëw di def ay dépistage di dimbale mbooloo mi ci di leen seetal ba xam jan tawat la ñuy am kooku Basiru euh, Njaay mii ci hôpital janatu moo ko yore te ñooñu it ñi day ñëw seen taxawaay rafetlu nañ ko ràññee nañ ko ñi ngi leen ciy woo di waxit ne Al ji ñako da daa yore ñoo yore muy serigne Moustapha sile mi nga xamne moko da taxaw mbollem ku jang ab kamil tàmbalee ko ci benn ba ci lim bu mëna doon rek serigne Moustapha sile lañ koy jébal mu jébalat ko serigne bi ñu yobbu ko ba ca serigne Sidi mi nga xamne mo fi nekkal serigne han di len ci soñ yeen ñepp xasida it ka saalika naka bay wuñu kenn guddi gi it buñ ca démé magal gi day fanan serigne ganna Messere moy def waxtaan bi serigne saliw ngar dana fa jang serigne Cheikh Mbaye Diouf ak jang kat yi nga xamne ak sëriñ Xaadim Guèye ñooñu ay wëllërey sëñ bi lañ te danañ ci ñëw waaye ñi ngi leen ci woo yéen ñëpp bàyyiwuñu kenn ak sëriñ Xaadim Kawe ñoom ñëpp ku ci ne xam na ne sëriñ bi ay seq na ak ñoom kóllëre goo xam ne dinañ ñëwal sëñ bi ci bis bi. comme ginnaaw bi ñu jëlee ndigal ci Seexul Xaadim Mbakke euh, ñu fas yéene rek euh, ci daara ji nga xam ne ni mooy daara sëriñ Mor Maguette euh, Ndiaye alxuraan ñu ngi tàmbale ci moom sëñ bi nee na mu ngi jiital ci moom. ñu fas yéene ko woo ci njàngum alxuraan moomu di ci toftal daal di sëriñ mamoor Kan Euh, di ci toftal daara Serigne Khadim Gaye di ci wootam euh, daara Serigne Dawda Mbay mi nekk Tiwaawoon di ci toftal euh, daara Serigne Abdou Salam Dieng ñu ci toftal daara Serigne Sidi Diouf mi nekk Thiès di ci toftal Serigne Cheikh Fall mi nga xam ni moo nekk Italie te jiite mboolem ñi nga xam ne ñoo jàng alxuraan foofee ci itali di ci jiital soxna Aida Amar mi nekk Maroc. soxna Aydara Amar mi nekk Maroc mook waa këram ak njabootam ñëpp sëñ bi nee na mu ngi leen di woo di leen soññ ak mboolem ñi nga xam ne nii jaayante nañ ci koor gi waxoon sëñ bi ñu ngi ci limu alxuraan ak xaside ak mboolem ñi nga xam ne fuñ mën di nekk ñu ngi durus xaside yi te jaayante ci bis bi ci ngir jëmmi sëñ Abdoulaat sëñ bi nee na mu ngi leen ci soññi lépp loo xam ne waaye jàng na ko ci rek nga indi ko fii ci barab bi nga xam ne moom la ñuy defale Cheikh Abdoulaat Mbacké wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di jiital ci siyaar bi kilifa ak jotaay bi muy sëriñ seexul xadim Sidi ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax a baax di soññee li nga xam ne si moom fi tax a toog muy màggalu Seex Abdou Lahad di soññ sama mbokki jigéen ñi di soññ mboolem daayira ci koñ bi yëpp ak soxna ci koñ bi yëpp ñu ngi leen di soññ ci li nga xam ne si mooy màggal gi nin ko daan saytoo ak nin ko daan taxawoo li ci ko jiitu muy wàllum set setal bi nga xam ne si na daana am ci kër gi ñoo ngi leen ciy soññ bu baax a baax di leen soññ ci li nga xam ne si ne mooy siyaar xam ne si ne daanañ ko amal di jëm fee ci kër ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi leen ciy baax a baax li nga xam ne si ne mooy wàllu waañ wi taxaw gi ko daan taxaw ak saytu gi ñu ko daan saytu ak li nga xam ne si ne mooy wàllu baas beeg yépp ñu ngi leen ciy soññ di wax ñu amub yar am teggin ci li nga xam ne si ne mooy bisu màggal boobu ñu taxawal ñoo ngi leen di nuyu mbokki jullit yépp rawatina mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu bu baax ci bis bii nga xamee ne moom lañ dëgmal di bisub sëriñ Abdoul Ahad Mbacke sama yaakaar yi tey ak ëllëg maa ngi ciy woo képp koo xam ne mi ngi dégg sama kàddu wala mu di ma seetaan ñëpp maa ngi leen ciy woo bàyyiwuma kenn ci jàmbaari sëriñ Touba ji nga xamee ne képp kuy murit te yaakaar sëriñ Touba rek ameel nga ko njukkal ngir li mu liggéeyal sëriñ Touba. ak ni mu meloon ci moom ak li mu ko defal dimbali ñu ñun taalibe yi nga xamee ne dañoo won nan lañ war a toppee Serigne tubaa ak nan lañu war a yaakaare jëmm joojee nag ak liggéey liggéey gi mu liggéey Serigne Touba liggéey ko ci yoon wi moom la ñuy waaj bisam ma di ci woon ak képp koo xamee ne mas naa laa lebal te ëmb lu bis bii nga ñëw fay si ma ci képp koo xamee ne tamit ëmbaloo ma bor borub teew na nga ñëw lebal si ma ci bis bii ndax ëmb bis bis bi ëmb bis bu dug moom. te ki ma ciy liggéeyal mooy sama yaakaar yi tey ak ëllëg muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké kon maa ngi ciy woo njabootu Serigne Touba gépp di ci woo ñi ma bokkal mbool ñi ma bokkal Serigne Madiba Silla ak ñi ma bokkal Serigne Darou Assane Ndiaye ñëpp maa ngi leen di woo ma kenn képp koo xamee ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah ak foo mën a nekk rek tey sama wëllëre wala nga bëgg a fasante man kóllëre nga di taalibe foo man di nekk na nga ñëw wuy si ma ci bis bii rawatina nag taalibe yi nga xamee ne seen bunt ci Serigne Touba dañ koo jaaree ci man ñëpp maa ngi leen di woo kenn ku ne lam jàppoon bu ko mënee bàyyi mu bàyyi ko ñëw fekk ànd ak ñun bis bi di bisub Sëriñ Abdou Lahad di leen fàttali tamit ziar bi nga xamee ne danañ ko di defal sëriñ bi bu ñu nee ginnaaw suba la màggal gi di ci woo képp koo xamee ne bëgg ngaa jariñu rek dugg ci bayitub Sëriñ Touba boobee muy wax naa inna lazina ila sarsara xatqa zadwu ziyaarati faaraxu daarini awsara képp ku bëgg a bokk ci bayit woowee da nga ñëw ànd ak ñun bi te xam ne la ni nga ko bëggee na ko Serigne Touba bindee woon ci xumaag rafet nañ jot ne da ko amee ci ziar bi ndax lu baax rek lañ ci jublu te Serigne Touba rek lañ ci dakk ak ngërëmam Mbacké Cheikh Abdoulaye Mbacké ku faatu yaa fay njëkk teew buñ koy jullee yaa nga fa teew ñuy rom nga ànd ak ñoom di teew bun demee nga des tontu Mami sering seexul khadim bakke ku faatu yaa fay njëkk bun kay julee ya nga fa ñi ñuy rab nga ànd ak di teew bun demee nga des tontu layam mosoona lebal si kay fayma ci lan bisub cheikh abdullah Lahad bakke fo jaar way ba dañi ku bañ a gis jëfam bul ñëw Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké ku mu jamonoonteel jëfal na la maami Serigne Cheikhul Khadim Mbacké moo xotti autoroute bi bibliothèque bi daaray Kaamil aynu rahmati université bi Cheikh Abdou Lahad Mbacké Ubaydu Rabihu moo tax sëriñ bi nee na mbooleem mbaakool gépp ñu ngi woo waaye nag duñ fàtte kër Cheikh Daaru Assane Ndiaye di ñaanal nag aji Mariama Ndiaye sunu yaay ju baax ji ci kër gi yal na yàlla guddal fanam ci barkeb Serigne Touba kër sëñ ma diba si la fàtte wunu kenn Serigne Seexul Xadim Mbàkke nee na bisub Seex a Lahad Mbàkke ngi nii ku fi ñëw Seex Abdou Lahad fat la te Seex a Lahad nag ku mu fat doo fanaan bitti Seex a Lahad ceebala ku bëgg gis baax ba ñëwal kër sëñ Seexul a Mbàkke wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu